invité yi maanaam ay invité de surprise rek lañ ci gis te lii mooy wéral ni sëñ Touba moom géej la goo xamante ni moom da ngay tëmb di tëmb di tëmb rek mais doo ko mos a dajal bu mukk ñuy ñaan suñu borom nag li nga xamante ni moo ñu jëlee capital ak ñi fi fekk si ak ñi nga xamante ni ñëw nañ te yëguñu xamuñu lu xew yàlla suñu suñu borom gindi yiw yi nga xamante ni moom lañ sëñ Touba di boole tamit ñu sédd leen ci ñu ngi rafetlu gis-gis yi ñu ngi lu teewaay yi leen gërëm leen ak waa Big Deal tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. sëñ Moussa Wa bisu xasida yi nga ne lan. waaw bésu xasida yi moom eh, sant yàlla baax eh, barkeelu rek eh, liggéeyu sëñ Touba moom lu ci waa def rek sabab nga ko defal sëñ Touba nga ko defal. yàlla dina la ko fay donc kontaan ci bu baax a baax di ci def suñu këmtulaay kattan lépp lu ci waay mën rek eh, ñu ngi la ci ñu ngi lay ñaan daal maanaam nga def ko ndax eh, di nga gis njëriñ ji daal naan sant yàlla bu baax a baax di rafetlu organisation bi di rafetlu lépp li nga xamante ne moom la gars yi nekk fii di ko def donc alhamdulilah sant yàlla te yàlla na jëm kanam di gën a rafet à chaque fois. jërëjëf sëñ Modou Moussa Ba. Baye Fall waaw waaw nga ne lan ci bisu xasida yi. waaw sant rek. bi ñu ku tedd ki boolee ci liggéeyam bu tedd bi di ñaan ku tedd ki guddal fan yu wéral cër yi rek ban yàgg koo teewee ci kàttanu Cheikh na Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Baye Fall jërëjëf. soxna si sànni si ñaari kàddu ci bisu xasida yi. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen nuyu di leen ziar di sant Ahmadou borom jaam ñi. te xam ne nag bisub tey bi mooy bisub lépp ndax euh, ku mos a ñëw boo jamono ku ne suñu borom da laa jox sa pàggu téef ku mel ne yonent yàlla Moussa suñu borom yetam ma la ko joxoon euh, suñu borom nag li mu jox xaadimul Moustapha mooy xasida yi kon moom la nuy dundal tey jii te neewoon na na ngeen fonk sama xasida yi ndax na ngeen xam ne sama yàpp yaram laa dagg jox leen kon na ngeen fonk sama xasida yi ne ko ma Massamba mu ne ko Mbacke mu ne ko sama xasida yi ku neex baat na koy jàng su fekkee ku naqari baat nga koy jàng na ngeen ko woo tere ko su bañee na ngeen ko neexal su bañee na ngeen ko cipp cippal mu bàyyi kon xasida yaa ngi noonu mbootam rëy na lool te yaatu jërëjëf Ahmadou yaakaari jaam ñi. jërëjëf soxna si. Sëñ Assane waaw nga ne lan nga ne lan ci bisu xaside yi ku wax xaside wax maam Cheikh Fall wax liggéeyam ci Serigne Touba. waaw xanaa sant Serigne Touba tey gërëm maam Cheikh Ibrahima Fall lamp rek ndax fépp fu ñuy liggéey la Serigne Touba Cheikh ñëw doon seera sa looloo waral suñu ñëw tey te xasida yi kenn ku nekk xam na ne Cheikh Ibrahima Fall waxoon na ci mujj goo xam ne danañ dem ba di ko dégg ci miir yi danañ dem ba di ko dégg ci garab yi fu ne danañ ko dégg ci àdduna yi loolu Cheikh Ibrahima waxoon na ko ci xasida yi moo tax mag ma njëkk a fekkee ñuy def daayira jël pot pollu rajo yooyu takk benn bi ci miir benn bi ci garab xasida yi sëñ tuwaay yi jib dafa daanu moom yuuxu kon loolu ci kàddug Cheikh Rafal la njëkk a génne ñu jóge ba capital ñëw fi Cordoba capital ngir taxawal xasiday sëñ Tuubaa yi yal nañ ci dajeeg ngërëmal sëriñ bi zaahir ak baatin ci kàttanu maam. jërëjëf jëwriñu Baye Fall yi sëñ Assane si nga ni nga loo loo loo wax ci journée rek. waaw ñu sant bu baax rek ñu ngi ñoo ngi nii ci ni rek fas yéene liggéeyal sëñ bi. waaw sax jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba suñ la ko waxee. ñu seeti Baye Fall yi Baye Fall yi segg café yi waaw yéen moom vraiment ko wax journée xasida yi wax leen waaw nga ne lan waaw yëkkatil. Ah, Cheikh Modou Kara. waaw waaw la ilaha illallah. damay laa ilaaha illallah. ak sa ak sa ak sa. laa ilaaha jërëjëf moom Cheikh Fall. laa ilaaha illallah. waaw Modou Fall Seer Ndiaye. waaw Biram jëgg nga jëngaa. Cheikh Ibrahima Fall. Fall Babul la Babul Mouridine may sa bëgg Kumba Fall góor ga demoon maa yem. laa ilaaha yaaram daa boy maam Seydina bu Njaay kor jóg bàyyu na la maam Cheikh Ibrahima. laa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah yaaram laa ilaaha illallah lamb baabil muridina jaam ñi yaay seen borom lamp baabil muridina jam ñi yaay seen borom lamp faal baabil muridina akay dëgg ah, waaw waaw Baye Fall bi waaw waaw waaw ñu bi su xasida yi ngeen di bëggee waaw waaw maanaam man la Baye Fall Touba Rosario maanaam may nuyu waa Argentine yëpp fii maanaam mooy fi ñuy defaree kafe gi waaw di wa ahlu di ko fi segge liggéey bi nag Baye Fall yi maanaam saa su nii lañ koy defee waaw maanaam njëkk a ñëw mujjee dem waaw ñooy defar mbir yi commencé bu paree ñoom leen fi bàyyi it ñu defar mbir yi ba mu waaw loolu nag maanaam moo ñu war ñun noonu lañ war a doxee ah. maanaam Baye Fall ndigal waaw kon nag wax dëgg yàlla ñu ngi sant mbokkum murit ahlu murit rek yu nekk Argentine ba si Amérique latine bi waaw di leen sant di leen gërëm ak maanaam sunu mbokk yi maanaam muy Moodu ak maanaam euh, sëñ Badou Ndiaye sëñ dëgg yàlla waaw Touba Argentina TV waaw Touba Argentina TV waaw big dealer in the house waaw moom lañ wax de mu am drapeau Argentine ak drapeau sunu gaal. jërëjëf waaw kon nag ñi ngi leen di sant di leen gërëm. waaw kon jërëjëf Cheikh. jërëjëf Ahmadou Bamba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Cheikh. ay dafa ci déwén por la, jornada. El nombre y apellido. Sognafati. Sognafati, la mujer de... Nadie. ahora sí, sí, sí. ¿Cómo ves? Eh, me siento muy, feliz, contenta de ser parte de, lo que es eh, toda la colectividad musulmana, Murid. Eh, este evento que es nuevo. ¿La primera vez que venís en los eventos de los senegaleses? No, no, no, Yo hace desde que empecé a... ¿Por qué son Por la mamá de Serinsalio. De a casa. Sí. Mira que sos el discípulo de Serinsalio. Ah, sí. que mañana sería el marido de, de, de, Sonopati, ¿no? Todo es posible. <laughs> Gracias, gracias por todo. Te agradecemos por venir. Bueno, Yere... de la familia. Ah, gracias. Yereyef eh, Borontuba. Yereyef Serintuba. waaw mais journée xasida yi ceeb bi lu mu saf lu mu saf ceeb bi. waaw ceeb bi saf na neex na lool barke Sëriñ Tuubaa. ceeb bi neex na lool waaw Pape. yeewu saa yi man kay xam Bamba moo neex. billaahi Bamba neex. waaw macha allah barke Sëriñ Fallu ñëpp kontaan na. Ah. waaw yàlla na Sëriñ Tuubaa taxaw ñëpp. barke Sëriñ Bamba nga ne la. sant ah. aro mooy daanal vidéo aro waaw gaa yi ngeen di ceeb bi lu mu saf. saf saf ñeere nee bambal saf. waaye lépp la saf. bamba fépp bamba lépp. torop neex na lool bamba partout. waa Baye Fall yi doon séddale ngeen nga ne ah waaw li nu wax rek mooy maa xam bisub suñ bamba moom neex lool rek wax dëgg yàlla ba jéggi day wax waaw suñ tuwaa du nit daal. parce que boo xoolee daal lii daal misaal la daal wane na ne Serigne Touba du nit parce que boo xoolee yaa ngi gis suñu mbokku argentino boobu noonu nga xam ne takk der la ci réew mi mi ngi noonu di jàpp ci liggéey Serigne Touba bi muy lu doy waar kon maanaam da lay liggéey suñu Serigne Touba bi maanaam jéggi na dayoo daal waaw di di wax jërëjëf Serigne Touba di doole sant Serigne Touba daal doole ca lañ ko santoon te di ko xeeb waaw jërëjëf Serigne Touba. jaajëf jaajëf. sëñ Bamba nga ni bàyyi mu bàyyi li ngay def waay ma koy amul wax xanaa bëgg rek barke sëñ Saliou moom koy fi ne nii moom toor fa kàlla rek waaw. ¿Qué dices? ¿No me vas a decir algunas palabras? ¿Me dices algunas palabras de Serigne Touba? ¿Ya conoces Serigne Touba vos? Sí, Serigne Touba tiene mucho la ropa blanca y también es negro. Serigne Touba tiene una ropa blanca y es negro. ¿Y vos te gusta Serigne Touba? Porque es muy bueno. Es muy bueno, ¿no? pero ¿quién te contó que es bueno? ¿Tu mamá o tu papá? ¿Quién es tu papá? Mi papá es Mustafa el cocinero. Mustafa el cocinero, el bueno, el cocinero. Pero si él te contó que Serintuba tiene una ropa blanca y es negro, es una, buena persona, ¿Y te gustaría ser su, amiga, Pero es varón Serintuba. ¿Pero es tu amiga? Sí. Entonces, Yereyefe Serintuba. A ver, decime. Quiero ir en Tuba. Vamos. Quiero ir en Tuba. Vamos. Quiero ir en Tuba. Vamos, gracias. Che, ¿ustedes qué decimos? A ver, ¿qué es lo que sentimos? A ver. ¿Está rica la comida? ¿Está rica la comida? Sí. ¿Está rica la comida? Sí. ¿Estamos contentos? Sí. Jerry Jefferson en Tuba. A ver, decimos, decimos Jerry Jefferson en Tuba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Vamos. A ver, familia, ¿cómo, lo sienten? Muy bueno, riquísimo está. Riquísimo, riquísimo. Sí, muy rico, muy rico. Carne, la carne. muy rico, muy rica la comida. ¿A ustedes bonitos. Muy buena la comida y muy vistosos todos los trajes que usan. Merna, magnifique, Jerejov. Muy rico todo, la verdad que un éxito el evento. Muy rica la comida, muy lindo todo. muy lindo. Hermoso, todo, siempre muy hospitalarios, muy, lindo. Muy rico todo, muy interesante, la verdad. choferes? choferes, ¿Dónde están? Eh, fueron al baño, ahora vienen. Ahora vienen. ¿Y ahora cómo lo sienten? ¿Estamos disfrutando? muy bueno. Ahora llegamos ya llegamos, ¿eh? Queremos dos palabras, algunas, a ver. <laughs> ¿Qué es lo que sentimos? Eh, no, que está muy buena la fiesta, la estoy disfrutando mucho. Sí, ¿cómo se llama? Eh, valió la pena venir acá a Córdoba a ver la fiesta de Sí, muy lindo todo, muy lindo. Sí, es la primera vez que venimos. Muy lindo, muy lindo. Todo. En la palabra, muy lindo. Ahí llegaron, ahí llegaron los, las, las amigas. Hola, gracias por la invitación, hermoso todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y a ustedes cómo lo sienten? Es bárbaro, genial, hermoso. Nos enteramos de casualidad y estamos acá, la primera vez. ¿Cómo es la comida senegalesa acá en Roma? La comida es alucinante. Es, una, es un sabor único, ¿eh? es. ¡Ah! Es <laughs> de todo, ¿no? Es todo. A ver, señorita. ¿Qué, ¿Cuál es? Me gusta mucho, son muy hospitalarios, nos han recibido súper bien. Eh, así que les agradezco a todos los que organizaron esto y a la gente también. Te agradecemos. Bueno, gracias. Mucha, mucha generosidad, muy rico todo, muy amables, muy linda la cultura. Un agradecimiento a ustedes. nosotros le agradecemos a ustedes. Muy emotivo todo. para nosotros es un honor estar acá compartiendo este momento. Muy, muy, lindo. Gracias. bien? ¿Comiendo bien? ¿Cómo ven la fiesta? Eh, la verdad que estamos sorprendidos. sorprendidos. ¿Por qué sorprendidos? Eh, porque estamos como en otro país, eh, en nuestro país. Y está buenísimo conocer esta cultura eh, a través de... que la conocimos a través de nuestro amigo Tiam, Tiama. ¿Y cómo ven la jornada? La jornada de Hasaid. Eh, bueno, estamos conociéndola y nos conmueve un poco todo lo que es este cántico y bueno, la, la hermandad que hay. Ah, buena, buena vibra. Gracias. Ah. Hola. Hola, ¿cómo estás? Eh, ¿qué, es lo que sentís? Felicidad, me encanta compartir esto con ustedes y bueno, los felicito que lo hayan podido lograr y con mucho esfuerzo porque lo vi. Y bueno, nada, feliz de estar Gracias. Hola ustedes, hola nena, ¿cómo te va? Hola, bien, ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo? ¿Qué es lo que sientes hoy? Mucha emoción, mucha, sí. Muy ¿Cómo ve la comunidad senegalesa? ¿Cómo? Muy buena gente, sí. Muy bien, se llevan muy bien, sí, sí. Muy lindo todo, excelente. <laughs> Igual, muy emocionada, muy lindo, muy buena organización. Son las palabras de la población cordobeses, ¿no? Sí. Muy, muy lindo todo. Muy lindo, muy lindo. Pero muy contento. Sí. Gracias. Hola, nena. ¿Cómo, cómo lo ves hoy? Bien. ¿Estás contenta? Sí. ¿Muy contenta? Sí. ¿Y cómo, cómo ves la comunidad senegalesa? ¿Son buenas personas? Sí. Te agradecemos. Gracias. Hola, nena. ¿Y cómo ven la fiesta hoy? Bien. ¿Está lindo? ¿Ya lo disfrutaron? Sí. ¿Sí? ¿Y a ustedes? También. ¿También lo disfrutaron? Sí. ¿Y cómo ven la música, los hasai? Sí, está lindo. Algo raro, ¿no? Sí. Hola, ¿a ustedes? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo ven la fiesta? Bien, bien, bien. Está bueno, me gusta. Una cosa nueva para ver, porque sí, nunca lo había visto antes. Claro, claro. está el cambio cultural. Muy buena la cultura senegalesa, la comida muy buena, muy buena. Sí, muy bueno todo y la comida, <laughs> todo. Sí, muy bueno. comunidad senegalesa acá, acá en eh, Sí, me Buena persona, ¿no? Sí, muy buenas personas. A mí me gusta. ¿Te gustaron, no? Sí, <laughs> muy buena la comida, picante también. Muy buena la comida y las personas también. Sí, las personas sí. <laughs> también buena. Sí. Te agradecemos por venir a ustedes, ¿eh? Es un placer verle a ustedes. Gracias. waaw loolu moo nekkoon benn interview bu ñu doon def ci euh, communauté cordobès bi nekk fii ci Argentine ak nen la ñu accueillir Sénégalais yi vraiment wax wax bu rafet ci Sénégalais yi seen nekkin wax nañu ne seen euh, Sénégalais yi nekk fii Cordoba nekk nañ fi nekkin bu rafet u nañ seen bopp ak Sénégalais yi duggante nañu ak tubaab yi duggante nañu ak bépp xeet bu fi nekk loolu di nekk mbégte di nekk mbégte murid yi di nekk mbégte bépp boo bépp doomu aadama nekk mbégte képp koo xam ne lu baax tax na laa jóg lépp ñu koy sant Serigne Touba delloo ko ci bisu xasida yi xam ne ñun murid Serigne Touba rek la am ñun murid Serigne tubaa rek moo na ñor ñun murid Serigne Touba mooy suñu wéetal mooy suñu jàppandal mooy suñu doole te moom moo ñuy kennal moom la ñu kennal kon jërëjëf Serigne Touba loolu daal mooy baat bi mujj ba ci kanam ñu ñu dëkkaat ci bu soobee yàlla jërëjëf